ñëw gars yi arrière la léegi nag dafa am lu xew. ñu ne la deux ñun ñëpp xam nañ ne la deux mooy combat bi. bu ñu bëree la deux ba pare mooy samedi le trois muy dimanche le quatre caat li bai wani ne ba ni ni jakarta ni wow sabar yeeg yëpp a ngi fi dafa bëgg a rawee ba mayaar yi le trente ñoo ko moom waa moo di ñëw dëkk kat bi dama bëgg nga xam ne les différentes plateformes ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp tey nag ñu ngi fii Yoff place u ñëw fekk fi nag benn champion daanaka ñuy waajal bés waaye avant rek dañ koy dalal nuyu ko bàyyi ko mu nuyu ñu koy seetaan si àdduna bi ñu ngi lay nuyu bu a a baax a baax doom day mbàkkeel bi di ziar. waaw bu ko ñu bëggee di la ziar ginnaaw bi sant yàlla julli si Seydina Muhammad ñu ngi gërëm suñu ñaari waajur di gërëm waa Yoff gépp wax Arru Rasul bi yëpp ñu ngi leen di bëggee di leen gërëm aw ma seen fay yàlla na leen yàlla fay maa ngi gërëm Yoff gépp di gërëm Ikri Yoff waaw kaw ba suuf boo limee rek da ngay maa ngi gërëm ñëpp di bëggee suñu kostu Abibu Baye Ngañ waa équipe bi yëpp daal maa ngi kontaan si ñoom saa bu ma leen rek damay lim Ismaïla ñëpp maa ngi leen di gërëm di sant sama fan si club sama staff di leen bëggee bu baax a baax waaw. waa làmb gëjoon la gis say fan sa gëjoon na gis ngay waajal bés nag naka nga waajalee sax combat bi ba pare balaa maa ñëw. waaw combat bi waajal nañ ko dañ ko war a waajalee rek gaa yi teg ñu lu métti waaw. teg nañ ñu ay coono yu métti métti métti préparé nañ li ñu war a préparé yëpp. loo gën a liggéey ci combat parce que sànq ba tey maa ngi yaa ngi xeex rek. non làmb ji damay sóob rek xeexuma de damay sóob rek di njaab supporter yi mooy loolu. waaw xam nga ki nga war a bëri. waaw Pambay xam naa ko xam naa ko nii rek. ndaanaan ndaanaan la de. ndaanaan la mais gars yi nga gën a doon ay ndaanaan ay mojj ay ji ay jaadu ñëwoon. waaye ka gën a doon ay ndaanaan fab de. bërekat la bërekat la parce que day dugg secteur siin bi di fa bëri ay papatu bëri doon kon kooku xam nga ne kenn du ko wax bëri doon. waaye Pambaay li mu liggéey yëpp mën a bëree mën a xeex loolu moom la concerné concerné wu ma man la monument bi. waaw waaw dalee ci kaw man jën bi jeex sax laa lekk moom bu la balaa muy lekk jën day fi naan cinquante jours waaw. xale bi yof bee wax de. est ban wóolu sama bopp yow yaay gis loolu. mais man nii laa mel de. barke yi laa baas. loolu moom la concerné man lijjantiwu ma mbër buy ne si beneen écrit waa yoof rek laa fi bàyyi amul leneen yow li wax nii moom la concerné ak waa Thiès man waa yoofa ma ñor ñor wakaam yoof kase waaw quatre heures bi yëpp. moom la fi ci mën ci am ñaari. moom la 12 février su ma jumul la mujjee arène nationale te ndam la ba jëlee. waaw te yaa ci ma jumul yow euh, bëre goo arène su ma jumul. man bëre naa arène nationale. bëre nga fa ren. mais dama jaay pare. waaw ah. def trois ans garaaw waaw ah. léegi damay ñëw bëre te taxaj hmm. public bi gaan. xeex ngay andi wala man bàyyiwuma dara de. non foo ne. dinaa la ko laaj. waaw waaw waaw waaw sama gars yi kii dafay bëreeg mbër boo xam ne waaw may nañu tuuti may nañu tuuti si boteer yi may nañu tuuti dafay bëreeg mbër boo ne dafa toj Thiès muy Bambey Thiès dafa def loo xam ne kenn mënu ko werante première incursion à Dakar à l'arène nationale mu déplacé public boo xam ne ba mu bëree daan gars yi dañu mën fu mu nekkoon moo tax ñu ne kii lu mën combat spécial grand combat la war a bëre moom Paji Abdoulaye Diop numéro 2 dafa bëre grand combat à l'arène nationale ko waxee dafa dem jaay pare nga ne toi bi nga def mais arbitre bi moom day yëkkati loxoom instant bi waa Yoff da amel bor supporter yi amel bor nga jël nag l' de Thiès l' enfant de R100 dafa mën a bëre gëm boppam cest à fi nga dugg xam nga ko derby Thiès Dakar derby Thiès Dakar derby régional la waa Dakar waa Dakar ñoom ñooy boot seen doom Ablaye Diop waa Thiès war a ñëw accompagner seen doom ci di r Pambay numéro 2 bu R100 sa est-ce que xam nga fi nga dugg Thiès nga dugg. man li may wax bariwul ko quoi man Pambaay laay laaj na xam na ki mu jël. est-ce que yow xam nga ko. man Pambaay laay laaj na xam na xale bi mu jël Abdoulaye Diop mu doomi monument bi na Pambaay xam na ko lool laay laaj mais bul ma laaj ci Pambaay. d'accord. préparation bi nee nga yow Modja Modja l'un des meilleurs de sa génération nag bokk na ci ñi dàq bëri ci làmb ji. jin bu yoof yaa ngi may dégg loo bu yoof. waaw ku lim juum. waaw gars yëpp ni nga ñooñu. moo di làmb ñooñu. waaw nga bi. ci dara bu si ñooñu bu ñu dugg ci làmb ji. ñooñu bu ñooñu bu ñëwee. Modja bu ñëwee. ci biti lay taxaw jin bu yoof bu ñëwee ci biti lay taxaw yow ak kii di Bamba yéen a jàkkaarloo ci biir jiw bu at bi mu ne la kaa ñu bëre looy def ne la kaa ñu bëre. ne ñu kaa ñu bu ne ñu xeex ñu xeex bu ne kaay ñu box ñu box su bëggee ñu xaar ñu MMA ci moom la def. am nga bëre bu daan Pambay est-ce que am nga techniquement bagage bu daan Pambay. non Pambay moom aw ma bëre bu daan li ngay wax nii yàpp boo ma ko waxee ñii nga yàpp. mais du man. waaw ma jël Pambay nga ne ndax xam naa kele bu ko mën a daan. waaw maa ko man te buñ jàppantee dina xam ne kin bokkul safin mënu million bi ngay waxal sa Ablaye Diop xam nga ñun ay reporter lañ dañuy laaj question bu ñu posé rek da ngay apporté réponse su ma la ba xam am nga bëre bu ko daan mbir boo jël jàpp nga ne war nga koo mën a daan n'est-ce pas kon damay posé question rek nga répondre mais côté mobilisation bu gar nuun ba Bambey day mobiliser lu bëree bëree bëree bëri te xoolal Thiès lay jógee Thiès lay jógee di mobiliser lu bëri yoof yoof man xaw ma yoof xaw ma football lañ gën a favoriser xaw ma parce que yoof seen nawetaan da ngay gis ful boo xam ne doo comprendre fa ñuy jógee mais jouru lamb ji jouru lamb ji est ce que est ce que Ablaye Diop numéro 2 pare na pour mobiliser loo xam ne boo dugg ñu ne eh doomu yoof bi ñëw na waaw yow yow yow tey jii boo gisee lii ñëw fii rek mercredi nga xam ne samedi day gën a neex est ce que li fi ñëw dana ñëw stade lu nga raw mooy ñëw stade bu soobee est ce que am nga jàppale bi incha allah est ce que waa yoof autorité yoof yi est ce que jàppale nañ la waaw ñu ngi oo autorité autorité ñu ñëw jàpp ci làmb ji ñëpp ay jaw immobilier ñëpp kay kayru saar maa ngi oo gars yëpp na dama war a lim après. loolu la fa def waaw bu ko continuer waaw waaw mais côté côté mobilisation est-ce que tey Ablaye Diop tey mën na génnee yoon. waaw di ñaanal suñu benn kilifa bu ñu jugee temps yi rek Babacar Mbengue maa ngi koy ñaanal. yàlla yërëm ko xare ko àjjana a daw si yaakaar naa ne noonu la demee kon nag waa Yoff sas bi sas baa ngi noonu parce que Pape Mbaye buy jóg ah, di ko Iliman Saaxo da jàpp bu baax borom SMS SMS bi kii maa bu baax gis la bu sori la jógee ñëw maa ngi bëggee bu baax aw ma fayam si lépp lay jàppee nag barki alquraan karim waaw côté mobilisation yaakaar naa ne côté mobilisation bi mu ngi oo oh, waa APEX jàpp nañ ci combat bi waa OPEX yi jàpp nañ ci di oo monsieur le di oo Abdoulaye Bouchard jàpp di oo Amadou Ba mu jàpp si bu baax Ousmane Diop Tayru Sara waaw Aliou Nguy Ndiaye ñu ngi oo madame Diop Pape Seck Zimo yi États-Unis ak rakk Les Ndiaye di oo Abdou Ndiaye Khalifa Ka ah Mamboy di oo Aïda yaa kenn Jal Diop borom Jal Diop ah di o imaamu Yoofi di o Amitom di o Assane Diène mu ngi si bu baax moo jox reer ak ndékki Assane Diène borom fasuur bi ku bëgg lu baax na dem Assane waaw di o di o waaw di o mafia bi Youssou Gueye ah, mafia bi ñoom Bachar waaw l'enfant de Taïru yëpp boo gërëmee waaw beex yëpp waaw di leen wax ne ah sa waay bu dof dofloo ma takos ko takos asan jéem bu dof dofloo ma takos ko di oot jàppale si waaw di oo Abdou Ndiaye di oo Mouhamed grand bu baax Mouhamed Diouf gis naa jàppale jeune maa ngi lay bëggee bu baax waaw di oo grand Mamou di oo ñëpp bu ma limee rek Diouf di oo autorité Yoff yëpp ñu ñëw jàpp ci combat bi waaw kenn si këram mbaa kent bi yëpp waaw ñu ñëw yëngal mbaa kent lañ lay war a def wax xam naa bu ma day xaar. waaw sax foofu lay xaar. man maa amal lu ma ko wax. waaw kay amaloo ko wax. amal lu ma ko wax. ah jour bi. man jour bi waaw man jour bi waaw. moo am sa mbër. waaw wala ko sa mbër Abdoulaye Diop numéro 2. waaw yow nga li tànn day dem jëli ndam di indi ko. waaw. mbër bu mbër bëree day bëri day xeex. jàkkaarloo ak Pape Mbaye fi nga wax ko wax. waaw Pape Mbaye. avant nga wax ak ah, te lenn moo tax mu sooxe muy mobilisation. côté mobilisation ni ñuy jàppale mbiru Yoff yi ni ñuy jàppale Moudia ni ñuy jàppale Jimbi Yoff ni ñuy jàppale Thiatou Ndiobal ni ñuy jàppale Boy yi ni ñuy jàppale ñoom ne Mbaye Ngoné ku ciy bëree autorité Yoff yi dañoo war a génnee débloqué jëndal leen ay ticket bu ñu accès à l'arène nationale ñu xam ne doomu Yoff ñëw na. waaw Pambay mooy loolu léegi man amatul dara lu ma koy wax yal nañu yàlla may kal affaire ba samb incha allah may ma di gërëm Père Baye Tiir bu baax président équipe bi ñu koy béyee baax a di oo waa Yoff jëpp Yoff jëpp Yoff Tongoor Océan Minaat di oo waa Daagu Daan Mbindeen Ndaparu Mbendeen Laayeen Nord Foire Ouest Foire Kàmbaam Bopp Waar maa ngi oo ñëpp ñooñu ñëpp ñooy équipe yi Yoff maa ngi leen di oo amul xaar ma yàlla kenn na ñëw ñëpp jàpp si làmba ji dem samedi jàpp daan bu soobee yàlla may wax yëpp gars yi préparé yi xam ne monument day ñëw waaw